asalaamaaleykum mbokku téléspectateur télévision Futur Média ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq waaye di leen baal àq di leen dalal jàmm nag ci seen émission bi di wareef ñuy ànd ak yéen altine al àllarba ba alxames ci kàttanu suñu borom bi may am mbégte nag di feggoog sama doom <laughs> sama xarit sama inspecteur waaye tamit seen inspecteur Ndoye Bane maa ngi lay nuyu. di la ziar. di la sargal. <laughs> di la ñaanal nga yàgg fi lool lool lool te wér di nuyu nag waa Pire Sanekhoor yëpp yëpp yëpp. da ngaa fàtte wax gars yi ne dama la doon topp bërgi démb. <laughs> xam nga dañoo amoon ay minutes de retard da nga bëgg ma tam la te duma la tam. merci beaucoup tax dégg ñi nga ziar bu baax a baax. bisimilah di ziar père Babou njaboot gi ñëpp mameeg maamaano maamam ak njaboot gi. kilifa diine kilifa aada yi. wallaay wallaay ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. di ziar takk der yi. Mm. Ah, ñi nekk ci réew mi ña ca frontière yaag ña ca aéroport ak ña ca port. ak ñi ci kaw tali bi. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di ziar waa Pire Sañokor moom parent Jibi Diagne ñu ngi koy ziar bu baax a baax sëñ Moussa Faka sëñ Moustapha Cissé mm. ak monsieur la maire euh, Serigne Mboup ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ñoo ñooñu waa Pire Saniokhor macha allah macha allah ñu ngi lay bëggee bu baax a baax di nuyu mariyeeg ñi ci kër gaa njaboot ga yëpp macha allah say affaire ay inspecteur yooyu dafa teel du ma ko wax te xam nga ni <laughs> jamono ju nekk la cay xew uh-huh. bàyyi ma jox sama sama jarbaatu bopp nag oh, sama xarit fa tabakalla macha allah yeewu lool fa tabakalla macha allah <laughs> enquêteur Mamy Diop maa ngi lay nuyu di la ziar yow tamit di la sargal di nuyu say mbokk sa maam ak njaboot yëpp yëpp yëpp ma nga <laughs> ko wax niñ waxee jërëjëfati Cheikhul Khadim sunu yaakaar yi tey ak ëllëg sama maam yàlla ñu ñaan ndax ñun Sénégal jàmm rek kay sunu mbokk te yàlla na fi yàgg te gën fi wasaaroo di wax nag yéen waa Sénégal kenn gënu leen ñi nekk ci biir réew mi ñi nekk ci bitim réew li ñuy waajal ni di taxawaayu Arafat ak tabaski gi ñu jëm yàlla nañ ci yàlla yeggaleeg jàmm te lépp luñ ci jaamu yàlla ak luñ ci ñaan yàlla nangul ñu ko tey nag taa diggéen damay dem ba États-Unis fële ca Lafayette mm-hmm. di fa seet nag sama sœur bopp boo xamante ne bàyyiwuma benn yoon nekk ak xujja Mbàkke Joob sama rakk jooju noonu muy faat jàkk ak borom këram mataw xam nga ku am doom moom ku nekk dañ la war a ganale ndax gan gu bees la di wax gan gi egsi na ci jàmm waaye yàlla na ko yàlla dalal mu am nday ak baay di wax ne tudduma suba la waaye a ngi foofu ci seen wet xanaa laax bi naa leen nañu ko envoyé Aziz Aziz ak la tudd bi xam naa ne laax bi su ñëwaatee laax yi day gën a <laughs> tas laax bi day jóge États-Unis waaw jóge jël naa commande ki ko war a indi ba pare <laughs> waa Canada yi yeneen bëgg nañ trop ci yow di nuyu sama maam Camara Jibi Anta Boy sama yaay tànna fi sama yaay gañ siri Thiam ak sama yaay yëpp eh, ndoy maa ngi nuyu sa yaay ak waa kër ga yëpp xam nga man nag boo ne di nuyu say bokk léegi dama koy xaaj ñaar rek uh-huh. muy fi ma yaayoog fi ma papa woo di nuyu yaaba xarit maam yi ak Assane Maram Penda yi di wax ne nag ku baax ku baax ku nekk bari mbokk moo tax mënuma leen a lim waaye sama xol a ngi ci yéen ñi ndeysaan ndeysaan du yi dañuy uh-huh.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 ñuy àndaat ak yéen ba tey ci seen émission bi di wareef ci télévision Futurs Médias seetu askan wi nemmeeku malaat yi ba tax ñu dugg ci dispensaire yi dugg ci hôpitaux yi mhm. dugg ci case de santé poste de santé yi doxantu ci néegu lëndëm mi ndax ñàkk ba ci mbedd mi di nemmeeku bu baax a baax malaat yi waaye nag dellu di ñaan buur bi nga xam ne moom rek mooy docteur bu mag bi moom yaa rab bi yal nañu saafaraal waaye tamit saafaraal leen bépp xeetu jàngoro bu nëbbu ak bu feeñ ci barke la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñuy àndaat ak yéen ba tey ci seen émission bi di wareef ci télévision Futur Média seetu askan wi dugg nag ci prison yi mhm. nemmeeku bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom la caabi féete gannaaw mhm. nee naa leen béréb yooyu jot bu yombul kenn nañ ci bàyyi xel nu jub lool lool lool lool ña nga fa ñu safaanoo nga fa waaye ànd ak lu ci mën a ne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 fa tabaarakàlla macha allah mami jamono ju nekk ak la cay xew fa tabaarakàlla macha allah tey dañu ne premier octobre ñu naan bés bu dellu si moo neex kon li yaa yëkkati ñu bés bu dellu si moo neex ñu am nag ñu ndokkee xam ne moo di suñu président directeur général macha allah macha allah ma jigéen Youssou Mari Sène Youssou Ndeye soxna Mbuub fa tabaarakàlla macha allah ñu koy wax happy birthday baan looy wax happy birthday bi dégg nga ñu koy fay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 waa lii lu koy fay. xanaa di ko ñaanal mu mag xaritam ba Nelson Mandela aw mhm. ko ay jaloore. Mhm. di ko wax ne damay jàppale. man d'accord naa man musub Nelson aw fan. ëpp sama maam ñoom ñaar ñëpp dañuy sëñ Nelson Mandela ak Nelson ndaw. di la wax ne keroog ba ñu la nga ma waxoon ba tey ca nga nekk. ndeysaan nga ne sama mag nga sa rakk laa. naa ko moom ngay doxe yàlla na la yàlla may wér. ndeysaan guddal sa fan te taxawu la. ndeysaan nii nga ñu defee sa njaboot nii yàlla na yàlla taxawee noonu te teg loxoom ci sa njaboot. ndeysaan ndeysaan ndeybaan waaw comme ni ko ñëpp waxee rek. Mhm. xam nga lu ñëpp waxee dëgg. dëgg na waaw lu ñëpp waxee dëgg man day wax dëgg yàlla yàgg yàggaguma fi. Mhm. Euh, euh, bi ma fi ñëwee yàggul mais yaakaar naa ni euh, ba mhm. li ma gën a neex ci moom mooy ràññee. man yàggaguma fi te ràññee na ma. ndaxte wax naa la ko ba yàggul. bu yàggul rek woolu na ma fi. ma dem ñu toog ñun ñaar kese. mu wax ak man yoo xam ni. ak bëgg ko yaatal waaw waaw. Mm-hmm. nee na ku siis bokkoo. waaw loolu nee na yaatal leen. li ma foofu daal. wallaay wallaay sas na ma. Mm-hmm. ñaax na ma te won naa ni won na ma ni am na fu ma teg. te loolu dafa dafa am solo. dëgg la foor ngay liggéeyal nit. Mm-hmm. mu yëg la. noonu ak yëg-yëg moom dafa am solo. noonu waaw ndaxte olof Njaay dani dama ko yàgg di wax. ndeysaan ki la boot di bëre. dëgg la da koy ñaanal mu am ndam. wallaay wallaay ndeysaan ndax su amee ndam. wallaay wallaay nga war ci ñaar. dëgg la su amul ndam. dëgg la ñaar war sa kaw. dëgg la donc ki nga xam ne dalaa boot di bëre moom Mhm. da nga ko war a ñaanal rek mu am ndam. dëgg la su avancé nga avancé. dëgg la say mbokk avancé. dëgg la waaw donc kay. wallaay wallaay koo xam ne daal njaboote nag nga euh, mi ngi ci ci ci loo ci ci gërëm përëb boobu ngay liggéeyee. wala mu yëlif la. ki la yëlif da nga koy ñaanal mu gudd fan. <coughs> tey am ndam rek. su ko defee yow tam ngay gudd fan te am ndam rek su ko mhm. defee lépp daal di naat sax xam ko ku yàgg ci loxo nuñ la tëyee nga xam ko dëgg la xam nga nag ku judd di liir sax ñu diw la karité waaye ku màgg taamu sa diw bopp jaar nañ fu ne waaye <laughs> bu ñegsee ci yow rek lañ xam ne xam nga programme bi mooy euh, euh, ndoy baan mhm. euh, fukki Youssou Ndour rek su amoon ci dëkk bi mhm. defe naa ne ne chômage dooti fi am ndax tamit nee naa la da nga koy séen di ko dégg soo ko jegee gën koo bëgg mhm. ndax nag mën nañu wax nag ci turu Groupe Futurs Médias yépp mhm. ci suba gis nga ko sama doom ni mu ko tàmbalee fa tabaakallah macha allah moom Baye Seex mhm. caa nga xam ne ku bëgg baax ku war a baax ak da ngay bëgg Baye Seex <laughs> moo commencé ci suba waaye nag li euh, euh, may faral di wax ne Youssou Marie Sène Youssou Ndeye Soxna Mbuub fa tabaakallah macha allah dañu koy ñaanal téeméeri at yi teg téeméer mu ëpp ni koy waxee dafa fekk ne te euh, Youssou ci jëm boppam moom moo mënoon na jël li nga xamante ne moom la ko yàlla may daal di ci tëdd nelaw waaye defu ko. Mhm. daf ko ubbi. te fexe ba nga xam ne ay sénégalais di jàppale ay sénégalais ay sénégalais di dundal ay sénégalais kon su fekkente ne ne que premier octobre bi ñëw na ci kàttanu yàlla dañu koy ñaanal bu baax a baax gudd fan ak wér. Mhm. téeméeri at yi teg téeméeri. Mhm. wér ak wérle képp koo xamante ne fa tabakal la macha allah rek. képp koo xamante ne ne yaa ngi toog di ñu déglu ci réew mi ak ci bitim réew ñu ngi lay ñaan nga ñaanal la ñu Youssou Ndour ni ko suñu papa Golbert Diagne waxee ci suba mm-hmm. mm-hmm. fatabakalla macha allah parce que yàggam ci réew mi njëriñ la fi mm-hmm. yàggam ci askan wi njëriñ la fi yàggam ci monde bi njëriñ la fi loolu defe naa ni nag kon Youssou Marie dañ la wax happy birthday di wax happy birthday tamit seexam ndax tamit hasard amul nday jëy fay tamit xam nga tey a baax octobre bi mhm. waaye jaar nag ci anniversaire Youssou bi di ñaanal Maradien di ñaanal ñi nga mhm. xamante ne ne fatabakalla macha allah ñoo ànd ak moom démb tey mhm. soog a ñëw ñoo xamante ne ne ñu ngi ànd ak moom te kenn gayu ko ci ku ci nekk rek yaa ngi xëy di xalaat lan mooy avancé réew mi kanam ndax kat avancé réew mi mooy mooy li Youssou Ndour di teg tànkam bés bu nekk ay employé am kenn merewu ko ay mbokkam fatabakalla macha allah kenn merewu ko adduna bi kenn la ba nga xamante ne moom xam nga moom nga mhm. nag dara mayu ko lu dul liggéey mhm. moo tax man suñ doon laaj ban woy moom a gën a neex ci woy a liggéey parce que dafa teg tànkam ci liggéey kon nag happy birthday président mhm. directeur général happy birthday Mbaye Dièye Faye happy birthday tamit euh, euh, jabaru Charles Faye Françoise Charles Faye mi nga xamante ne mooy directeur UGFM moom tamit soxnaam euh, tey anniversaire am Kenza Wendy ak David Françoise aussi happy birthday madame Faye sobre bi mm. na duggaale ah, nañu xam ne daal groupe Futurs Médias daal mm-hmm. ah merewuñu waaj mm-hmm. mm-hmm. kenn kenn du maaraaj ah? tamit kenn du ah? maaraaj xam nga programme bi mooy ku ñu ku ñu ku ñu xool sax xam nga Pape An dafa am wax ju am solo ji muy wax nee na ndeysaan fatabakallah masha allah ci moom laa déggee belli belli xam nga happiness li mu la happy nii képp koo xamante ne employé bu Futurs Médias nga da ngay xoolee da ngay xam ne da happiness bi su fekkee da nga fay Euh, am nga sas ndaxte nit ñi dafa am fu ñu la tegoon mais soo soo fi ñëwee dafa am feneen fu ñu lay gën a teg dañ lay gën a respecté dañ lay gën a jox cër loolu rek sas la bi happy waaw xam nga ndoy baat moom moom moom moom moom du du ni kenn euh, euh, gis naa yàlla gis naa yàlla mm-hmm. man li ma gis laay wax mm-hmm. su ma gisoon leneen nit su mm. ñëwoon fii. Mm. damay tëj sama gémmañ. ñun ñëpp ñun ñëpp kenn moom ko bu wàññi woon la. de ba avant avant yoo man tamit avant mel woon nit bii ëpp la. non non TFM la. yokkute ne gars yi naan yoonu yoonu yokkute. Mm. yoonu yokkute dafa am solo. xam nga te nit ku judd. bu am am <laughs> yaa lay doon. bi <laughs> mais. xam nga loo cof jariñoo ko ba mu des xorom happy xam nga dem ci kër waxuma la borom kër ga mm. borom kër ga woolu la ba nga ñëw mu wéet ak yow wax ak yow loo xam ne keneen du ko dégg yaa ak moom rek la mm. nga xam mm. a neex mooy nga ñëwaat ci kër gi ñëpp nekk famille boo demee sa kër da ngay ndax sa famille nga nekkal boo ñëwee fi da ngay ndax ci biir famille nga nekk kon nag kon daal yàlla nañu mucc comme ni mbaam muccee ci tabaski ndax xar du ko jafee ba ñu tabaski <laughs> ñuy tegal happy birthday ñu ñëwaat wala mais yaa noo koy defee ah waaw kon léegi li ñuy def mooy dem ci suñu sponsor ba nga xam ne. Mhm. ba ñuy tàmbale woyeef ba léegi ñun ak moom affaire bi affaire bu bëggante la. Mhm. muy kër aram jàppale du nuy bu baax a baax libaas ja ah ak ki ne libaas Fatou la macha allah ak waa kër aram jàppale 1 2 3 4 4 ba 1000 moom tamit nañ dem ànd seetaan léegi kon happy birthday PDG merci. jërëjëf kon euh, mbokk téléspectateurs yi dellu si nag euh, ci seen émission wareef ci télévision Futurs Médias xam nga ni ne jamono ju nekk ak la cay xew macha allah macha allah moo tax nag euh, ba tey ñu fas yéene ñëwaat ci li nga xamante ne moo di thème bi di leen xamal rek tamit ne bu leen fàttali mois d' octobre fu mu duggee rek octobre rose la ñuy wax. Mhm. octobre rose nag suñ ko waxee mooy octobre boo xamante ne ñun ñii jigéen ñi fas yéene ñu waxtaan ci cancer ah yi nga xam ne moom la jigéen ñi dund dinañ ci ñëw ci euh, ci courant mois d' octobre bi ci kàttanu yàlla soo leen gisee bouquet bi ñu teg nii ngeen xam ne ne que ñu ngi ànd ak euh, tamit euh, Maam jaaro Guèye kebe ak association bi yëpp dinañ ci ñëw ci courant mois d' octobre bi waaye xam ngeen ni ñu ngi nekkoon ci thème boo xamante ne ci kàttanu yàlla ci li ñuy wéy ndax gis nañu ne réew mi divorce yi bëri na ñu taxawoon nag ci li nga xamante ne ñu ñu ne nag ñun dañuy taxaw saytu baax a baax a baax a baax baax a baax lan moo waral divorce yu bëri yi boobu bañ ko yëkkatee ba léegi nag defoon na une semaine CMU bi dugg ñu waat ko daanaka parce que bëgguñu woon romb rek noonu cof ko wala boog cos ko comme ni ñu koy waxee dañu bëgg taxaw taxaw saytu lu tax divorce yu bëri mhm. ba ñu taxawee nag di saytu ñu gis ne paquet yi bëri na bëri boo xam ne paquet boo ca laal rek moom ca jëm boppam tem la ñu jaar ci nag ci ay mbiru tànneef jaar ci goro yi nga xam ne ñu ngi tas sëy bi nañ daan tànnee démb tànn ñu ko woon jaar ci li nga xam ne fii raange jaar ci li nga xamante ne mooy euh, yiwadi siis yooyu yëpp muy ay cause de divorce li ñu fi wax bëri na ah jaar ci xeetu wiis yi nga xamante ne aji ku góor ki wala aji jigéen ki ma ngi koy am ba nga xamante ne nekk sa conjoint supporté tu ko xëy suba dem moo ko gënal Euh, fu mu nekk nii tey nag tey Ndoye Bane ma bëggoon rek kon waxtu waa ngi dem. Mhm. tijji téléphone yi ci 88 628 22 22 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 88 628 65 65 wala 88 628 04 05 sooy wootee ci réew mi sooy wootee bitim réew nga def 00 221 33 841 22 99 waaye dama bëggoon tey jox la paquet rapidement rek mooy ñi nga xamante ne ne que. li tas seen sëy mooy doom yi ñu indaale yow par exemple nga nekk góor divorcé wala boog nga am ay doom suñu borom bi takk jabar sa jabar supporté wul doom yi ba da ngay obligé wala boog xale yi def ay plan ba tas sëy yi loolu tamit day am mhm. yow mi aji ko jigéen ki tamit mhm. nga xëy suba divorcé indi mhm. ay doom ndoyu baan takk la xam nga yow yaa ngi bëgg mami waaye bëggoo ay doomam loolu bëri na fi bëgg ganaar waaye bëggoo cuuc ya wala tamit nga gis ay xaleem tamit ñoom suñu sañoon papa seen papa la ñuy nekkal def ay oh. plan ba tas sëy oh. sëy bëri ñu fi tas ndax xale yi nga xamante ne moom la ñu indaale au sein du couple léeg-léeg góor gi bañ léeg jigéen ji bañ léeg-léeg xale yi ci jëm boppam bañ oh. paquet boobu laa bëggoon ndax motif de divorce yi bëri na doy baan merci beaucoup merci Tade Gueye bu bu jigéen bi moom dama koy bàyyi ak euh, mami mm-hmm. mais bu góor bi gis nga góor soo amee doom mm. euh, euh, ak sa jabar wala nga am doom ne feneen mm. ba takk soxna indi ko mm. yow góor ki sa personnalité mm. so da nga war a sa personnalité sa soxna mm. ak sa sa sa fulla ak sa fayda sa soxna mm-hmm. ak sa doom mm-hmm. soo takkee soxna mm. ni ko man abaa nga koy takk sax nga naan ko amoon naa jabar am doom wala nga naan ko amoon naa doom feneen mm-hmm. nii la tudd at yi la am bala nga koo takk nga xamal ko lépp ci moom xamal ko lépp ci xale bi bala nga koo takk dëgg la mais soo ko nëbbee xale bi ba takk ko mhm. soo ko indee xale bi loolu mën na indi problème mhm. lépp rek ca commencement ba ca njëlbeen soo ko ko waxee mhm. ba xale bi ñëw moo xam xale baa nga ci kër ga moo xam nekku fa pour su fekkee da nga dem takk ko ba nga yor sa kër nag nga bëgg sa doom ñëw su sa doom ñëwee ngay taaj sa soxna taaj sa doom ni ko kii sa yaay la dam bëgg nga jàppee ko comme sa yaay lépp loo soxla ci man jaar ko ci moom lépp looy def jaar ko ci moom su fekkee jigéen la mm-hmm. su fekkee góor la mm-hmm. nga xamal ni ko kii sa yaay la mm-hmm. lépp loo ko loo soxla ci kër gi te mu doon jigéen a koy lijjanti jaar ko ci moom lépp looy soxla loo xam ne góor a koy lijjanti ñëwal ci man waaye bugguma ngay def dara loo xam ne sa yaay ji ump na ko te bugguma nit ñi xam ne sax njuru la nga wax ko ak benn ton bu boroom kër bu ferme xamal lool sa doom sa jabar ngeen ko kii sama doom la mënoo maa bëgg a pare bañ ko mënoo koo génne kër gi mënulaa génne kër gi mhm, mhm. donc dama bëgg te loolu nag soo koy wax ak sa soxna mhm. sa doom jooju du ko fekke dëgg la am na wax yoo xam ne soo koy wax sa jabar ci sa doom jooju du ko fekki parce que am na terme nooy wax ak sa jabar noonu moom mën na faa jaare yàpp ko dëgg la waaw soo wax ak yéen yooyu sa jabar soxna nga wax ak moom wax ju leer sa soxna dina xam sa doom dina xam tamit bul defee fi naafeq sa soxna su fekkee jigéen la mhm. comme feet yi jot mhm. mu soxla léttu mhm. nga dem jox ko mu léttu ji ca jaaraloo mbir ma ca sa jabar su fekkee xale la ay xale bu am ay dix ans sa doom mu soxla mm, léttu nga soxla léttu nga jaarale ko ci ci ci moom directement te jaarale ko sa soxna loolu day indi problème nañuy éviter di yëkkati di di di di di nga koy ngay ngay xaajale ngay jël sa jabar mm. di toppatoo sa doom loolu te sa doom mu ngi ci biir kër gi sa mm. soxna yor ko loolu rafetu te mu war a nekk ndeyam te mu war a nekk ndeyam la soo mettre les points les i ci sa doom ji mhm. du yenn yi sax du xalaat du ko xalaat mhm. mais su fekk dañ ko bàyyi nii rek wut ko mu lay surveiller sa soxna mhm. di lu mu xam nettali la nga ko ci bàyyi kon daal taxawaayu ku góor ki daal am na taxawaayu ku góor bi nga xamante ne ku góor ki indaale na jamono voilà lépp nag commencement la ca labat ga ca nga nga koy ni ko man amoon naa soxna ami doom wala amoon naa doom nen feneen nga xamal ko lépp soxna si accepter loolu mhm. loolu lépp ci sëy bi avant mhm. ñu koy takk mhm. mu takk ko suñu sëy si dina faale kat man kat kii di su ma juree su ma amee moom doom du taawam am na taaw feneen mu ñëwaale noonu mais su fekkee dafa ñëw ba pare nga indil ko ñaari doom wala nga indi ko ñetti doom mu koy doo ko xam laa xale yooyu soxna si du leen mën a bëgg Ndeye Ba euh, mami waaw xale yi xam nga euh, taa dëggeen comme dooy nee na dafay jël ci góor ñi bàyyi maag jigéen ñi dëgg la li mu wax noonu la mais tamit xam nga taa dégg daf fee am ñoo xamante ne nii dañoo bëgg nëppatu mbët mooy dañuy dugal bopp bi rek bàyyi li ci des lépp ci ginnaaw mhm. doom ji balaa la góor gi bi la góor gi nee salaamaaleykum fekk la nga sëy ba ak noo mën di amee doom jan mhm. parce que nag doom doom la mhm. ñëw na ba pare wane ko waxal doom ji mais yow ci biir labat gi wonal ki lay labat si ne ko mhm. sama doom ji moo ma la gënal yow mi may labat si mhm. ndax yow lu mu metti bu mettee mën ngaa daw mhm. bu tàngee mën ngaa daw mais sama doom ji bu neexee maag moo may ànd bu naqaree maag moo may ànd mais foofu tamit dinaa fa am tuuti lu ma fa wax mooy am na ci góor ñoo xam ne système boobu lañ lay naxee ba takk la mooy dañ naan ku bëgg ci cere jaboot nax doom ji dañuy ñëw bu ñuy dikk bokk sa doomab chocolat bokk ko leneen nga kii dafa bëgg sama doom xottil seen i doom te xotti luñ doom yi ñu bàyyi ci seen biir kër di fayal sa doom ko seen i ba nga dugg ca boo ca duggee ñu wan la nen bëgguñu la woon yow nday ja bay bëgg doom ji maanaam meep la woon rek dañ lay meep mhm. mais nag xam nga man sama problème tamit mooy mhm. nañu waxante dëgg mhm. gis nga taa dégg mhm. waxoon naa la ko fi démb ne la fat fat lu tàggalewul mbaam ak i noppam. Mhm. nit ki ak li mu am boole leen bëgg mbaa nga boole leen bañ. Mhm. yow muy jigéen ñëw wàcc ci kër. donte nee la doom fekk nga ko fa wala fekk ko fa doom. soo fa fekkee doom la. yow dañ ba temple ba wala feneen. mais fu mu jàkka ji église ba wala temple ba. mais bu mu ci mën di doon calculer yow que ni kii nii doomam la ci ngeñoom gii la jóge moom ku góor ki am doom yoo xamante ne ñëwuñu ñibbil si seen baay mhm. ñëwuñu fekk si seen tante dañoo ñëw sëyal si seen yaay mhm. dañu waxante dëgg tamit mhm. parce que doom du wujje sëyub ndayam gis nga sa ndey su mo loolu mooy bëtt fi divorce yi wala wërsëgam jeexu fa du fa jóge waaye yow sa ndey jóge fa ba sa bàyyi takkaat jabar mhm. sa yaay solal la nag ngemb la ba nga dëgër mhm. takkal la nag nga jaagar jaagari nag ne maa ngi dem ci arène ba koy bëri jël nga ne sama soxna si papa say jàll ci sa nga ne ko yaay bàyyi koog mhm. ma demee nga ñëw ci biir kër gi nag di defanteeg sa soxna si papa dama ne kii jàll ci sa ginnaaw papa su fekkee ne bëgg nga sa bàyyi xool ko ni ngay xoolee sa mais jigéen ñi nga xam ne dañuy am dañuy sëy feneen wala ñu am doom feneen mm-hmm. di ko nëbb ku góor ki leen di labat bañ takk leen bañ commencé sëy mm-hmm. sa jëkkër motif de divorce la waaw sa jëkkër takk la ba nga amam ñaari doom ndekk yow am nga yeneen ñaari doom feneen te sa jëkkër mus ko naan nëbb ci jëm boppam moo motif de divorce loolu bis bu feeñee sëy ba tas voilà soo gisee li tax euh, xam nga mami mm-hmm. li ndooy baan boo wax li tax ñu naan enfant euh, yi nga xam ne né hors mariage. Mm-hmm. wala enfant yi nga xamante ne ne que euh, yi ñuy indaale. mariage mm-hmm. yooyu yu ci ëpp sooy sooy xool divorce yi ñu koy waxtaanee dañuy naan ne tas nañu sëy yi. Mm-hmm. bokk na ci liy tas sëy góor gi nga xamante ne ne que am na doom takk jabar te tamit euh, euh, tegul yëf fii ci yoon comme ni nga ko waxee. ñàkk teg yëf fii ci yoon. mooy am na ci ay góor yoo xam ne dañuy am tàndaas jël xale yooyu teg ko seen kaw jabar mhm. xam nga lu yëpp faux départ la mhm. am na ci ay góor yoo xamante ne ne que euh, euh, dañuy dañuy suuxa takk takku mer mhm. takk takku mer jabar faj mer dama wax waaw jabar allo allo soxna si asalaamaaleykum waaleykum salaam ma bëggoon a participer ñu ngi lay déglu allo allo. oui ñu ngi lay dégg bu baax salaamaaleykum. maaleykum salaam. Euh, maa ngi xamante seen euh, waxtaan ci allo sëñ ñu ngi lay dégg wàññil sa. maa mhm. télé bi télé bi moom na wàññi télém. waaw maa ngi wàññi sama. waaw bu ñu dégloo ci télé bi dégloo ñu ci téléphone bi rek ma chérie. d'accord allo Tata Gueye Chimère. na nga def ñu ngi ziar. delloo naa la ziar. fooy wootee man maa ngi wootee. maa ngi ko beneen yoon. waaw fooy lebal naa la ko lebal naa la ko soppe. voilà bisimilah maa ngi nuyu ñëpp ci jotaay bi. di ngeen wax ci thème hmm. dëgg la bàyyiwoo leen dara. Hmm. man ñun ay xale lan. Hmm. ñun dañoo bëgg si te yàlla tax. mais say di dugg si benn famille boo xam ne. Euh, li ñu ne la war a jàppee. day métti nga doon xale. dëgg la. parce que di nga gis dëgg la de na góor day takk ngir jabaar. waaye di nga rakk bu jigéen ba. ñu man prévenir man ci laa. Mm-hmm. léegi yow doo xool bu fekkee xale la ak génération bi nekk yow doo mën a comprendre yow nan nga a gérer. Mm-hmm. mën a toppatoo dëgg la na parce que suñu yoon maam la doon def. Mm-hmm. mais bu fekkee ñun tamit dem nañ li suñu yoon maam doon def ñun fekk wuñu ko ñun ñu ñu fekk ñun moom lañ man a def. da nga gis euh, frère boo xam ne dina ni ah, moom de war na maa defal nangam. sœur ni ah war na a defal nangam. am na wax. yow doo mën a xam nan ngay yooyu yëpp ci sa bopp. mooy mm-hmm. ba yow da ngay préféré génn ci sëy bi. Mm-hmm. te fekk doonu lu la gënal. Mm-hmm. dëgg la ñun tamit jigéen ñi ñu mën ñoo wax ne ñun tamit mm, am nañ tuuti défaut. parce que nit ki da doo wax toujours nangam. mais tamit nag war a jàppale xale yi ci biir néegi sëy yi. voilà parce que yow li sa frère def ba takk jabar yow defal ba takk ko. sa sœur tamit noonu nga jàppale sa sœur sa jabaru frère. Mhm. nga jàppe ko comme ni sa jabar. dëgg la mais soo xoolee ah waaw moom nga war na génération bi toll. Mhm. luñ góor ñi bëgg moom la jigéen ñi bëgg. dëgg la am nga yaay boo war a toppatoo. Mhm. am na papa boo war a boo waree dem liggéey ñu ne ah moom da dem na liggéey. ba mu maase ñoo togg ñu añ ñoo togg ñu reer. wallaay wallaay di ko si tax yi bari. dëgg mi ngi noonu. Mm-hmm. wala dem màkk wala ñoo toggal wala ñoo defal nangam. Mm-hmm. mais yow tamit jéem a takki sa jabar wala yow ku jigéen ki nga toog sëy sa sëy. doy na waar buñ defoon njëkkee yow mi toog tamit seen sëy. ñooñu mm-hmm. tamit toog toog takk jabar. dëgg la ñu bàyyi seen jabar fële bu ko defee boobaa jàmm am. dëgg la man de wax dëgg yàlla lu ne dem naa ko ci sëy xale bu ndaw laa. ndeysaan ndeysaan lu ne dem naa ko ci sëy. ak borom Tuubaa. lu ne dem naa ko ci sëy. mais nag dañu nag sëy nag loo boo ko fa fekk. dëgg la ma xool sama ndaw ñu daan ma di ko mën di ko mën. ba tubaarkàlla macha allah. fa tabaarakallah. am naa tuuti loo xam ne fi mu ne nii. ma neex laay def lu ma neexul laay yéen ma ko tey yëpp. ndeysaan teraanga bu nekk mu ma koy defal. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. macha allah macha allah. Mm-hmm. ku ci nekk lu mu dund. waaw waaw dafa metti mm-hmm. dafa metti ndoyu baan ba tey rek euh, ñu nekkoon mami ci paquetu xale yi. parce que li ma doon junj sànq rek pour jox leen. Mm-hmm. Euh, bëri na lu bëri loo xamante ne su tasee sëy mm. jóge ci xale yi rek euh, defe naa ni ca ni ñu ni ñu. xam nga lu ci nekkee dafa noo ciy duggee. Mhm. xam nga am na ci góor ñoo xam ne dama doon wax sànq léeg-léeg ñu takk takku mer suñu takkee takku mer fekk ne ne. mer yaa waaw mooy mer ngeen. ñu gis yaay yaayu xale ya ma nga ca biti. Mhm. génn na jote nañu waaye ma nga yore télécommande bi télécommande bi mooy xale yi. Mhm. télécommande bi sax mooy jëkkër ji nekk ci kër gi sëy yooyu ci ëpp day du dem xam nga parce que na nga takkee moment ba nga takkee ak lépp jaarul yoon. ñu gis si kenn koo xamante ne wax nga dëgg mami ñu ci bëri dañuy am doom yóbbu ko seen kër yaay wala yóbbu ko seen kër maam wala yóbbu ko dëkk ba mhm. toog duñ la wax nga ñëw labat leen ba takk leen duñ la wax ne am nañ doom mhm. loolu defe naa ni ne <laughs> confiance loolu mhm. góor ba su keroog su xamee lañ ko nëbb nit teg nappam nga nëbb ko ko loolu defe naa ni sëy boobu survivre nga gis keneen koo xamante ne mami mu nga bëgg a teel na sëy am juróomi doom waaye góor bu ñëw xool ko mu yor juróomi doom da ngay dem uh-huh. ndax da nga koy man gis naa koo xam ne dafa tabax ba mu yëgg doon labat kenn yóbbu ko ca kër ga visité loo ko ca kaw ba laa bëgg nga ñëw sëy si fi waaye say doom duñ fi dugg uh-huh. xam nga loolu problème la déjà uh-huh. kooku su fekkente ne naxante nga ak moom sax ba doomi dujj xamal ni sëy ba tas na doom yooyu ana seen papa waaw xam nga dafa am lenn loo xamante ne ne que euh, xale même su fekkente ne ne que doom yooyu yaa xam seen papa ngay dund wala seen papa dundul ka nga xamante ne mu ngay ñëw di la labatee xamal ne bëggul wala teel la xamal ne bëggul sa doom il faut mu am lenn loo xam ne day dagg mal mm-hmm, mm-hmm. xam nga ça veut dire même doom yooyu suñu amee papa yow ki nga xam ne da ko bëgg xamal ko ni bëgg naa la ak sa njaboot ba pare loolu day dalal xelu jigéen waaye toog ñëw ni xool na xool doom comme ni nga def rek mhm. waa xale ñoom ko wàcc mhm. parce que bëggoo doom yi sow taa diggéen bëgg naa ñu taxaw fa waaw nga fekk benn yow mi di laajte papa yow mi yow doo takk ku ku ku ku ami doom non <laughs> non yow ah. Ah, nga benn xale bu ah, jigéen kii kenn na bëgg nga comprendre mooy li fi may waxee gis nga benn xale bu jigéen bëgg nga ko mm. am na ñetti doom mm. bañoo ñetti doom yi de mm. mais gis nga ni yow sa bopp mm. xam nga xel ni ñii mënoo leen a yor ñetti doom yi bëgg nga seen yaay bañoo leen mais mënoo leen a yor mënoo leen a yor donc soxna si ci boppam mën ngeen a toog trouver ngeen toog waxtaan ba xam xool fan la doom yi di dem doom yi am ku am kër yaay kër kër yaay am nga kër baay. mi baam doom fu ko neex dem. waaw d' accord dès l' instant que góor mi ngi toog obligatoire. nga est ce que c' obligatoire soo takkee benn femme. Mm. mu am juróomi doomam su suy sëy si day indaale juróomi doom yi est ce que loolu si est obligatoire. mun la loolu loolu laay laaj. Mhm. parce que c'est pas forcé que di doo doomu ndaw si takk nga ko rek doomam yëpp dañu war a ñëw. ci waaw mais yow soo amoon doom. Mhm. soo amoon doom. waaw ñëw dama takk dama leen a am seen yaay. sama kër la. waaw non xam nga moo tax ma ne la. xooloo amee sama doom sama kër. xooloo xooloo xooloo gis nga gis nga sama fukki doom sama kër def takk. est-ce que waaw mën doo daan est-ce que xam nga. yow yow dégg xam nga tax ma kontaan. waaw laaj mu tax ma indi nga thème bi complètement voilà mm-hmm. indi nga cause yow xam nga indi nga cause mm-hmm. divorce ça veut dire le sénégalais lambda mm-hmm. comme ça moo tax ñu ci ëpp su fekkente ne jigéen dafa am doom sëy ba yàgg parce que yow nii ngay raisonner di wax nii déjà yow bañ bëgg nga sa doom bañ nga doomu keneen te yegg seegul non taxa taxa mag la nag njaay mu ne ma ne dafa dem euh, mu ne benn xaritam dafa dem ci benn kër nee bi mu demee ci benn kër di labat euh, ndaw si heure añ jot nee na ñu teg booli nee na moom daal bi mu dugalee loxoom gis na lu mat sukki xale ak ñett. ñëw ñëw ñëw dugal di añ. nee na bi ñu paree ak yooyu yëpp ndaw si ne ko euh, xanaa genre ndaw si def complexe daal. xam nga ndaw si bi mu defee complexe ne ko gis nga lii de moo tax ba mënuma sëy ñëwoon ci bool bi yëpp maa leen jur. mu ne ko yow ñëwoon ci bool bi yëpp ak yow boole naa leen yore. xam nga dafa am góor gu yaatu. Mhm. dès l'instant. Mhm. que yaa ngi bëgg jigéen bu am doom. Mhm. xam nga jigéen bu am doom dafa dafa metti nga toog di ko calculer. noonu non xoolal non yow nee nga yow. si su fekkee am nga ay moyens dama bëgg fi may dalal dama may waxee ñu dégg ko. su fekkee am nga ay takk jabar bu am bu fekk ko juróomi doom nga boole ko moom ak juróomi doomam yi yor te duñ soxla dara surtout yàlla ay moyen mën mën nga ko def mais su fekkee ki lay takk amul ay moyen amul ay mooy day luwee ci. Mhm. day day takkale. Mhm. ñu fekk la ak juróomi doom ba pare. mooy yowul de xam nga luy yow. lan mooy mais xam nga taa dëgg. loolu yaa problème non non xam mhm. nit yor na ay moyens te mënut a yor parce que amul xolu yor nga gis góor goo xamante ne ne que chauffeur wu car la mhm. yaa ngi dégg baax li ma mhm. am xolu yor vingt doom yoo xamante ne jabaram indi ko xam nga problème bi mooy lan lii cause de divorce affaire xol la nit ki munoo toog xool ko mu jekk nii nga bëgg ko mu yor ay doomam te yoroo xolu yor doom ya loolu mooy problème mu divorce ndoy baan te loolu la dal góor la lan laa dégg ci seen waxtaan mooy lu daggee ci ron tàbbi ci dàmba tukkiwul dafa ñibbi mhm. gis nga nañu ko ñeme mhm. man nee naa leen démb baatu jëkkër amatul nanguwuma ko mhm. gaa nag bëgguma sax toogaay bu yàgg bëgguma jànkatu gu yàgg ndax léegi ku ko fi def leneen dal la waaye nag nañu koy ñeme itam xam nga lu tax yow mi ñëw takk si fekk nit ki mu yor juróomi doomam mais juróomi doom yooyu yow boo leen yóbboo see sa kër bukk na ci sa wërsëg nga leen di dundal juróomi doom yooyu dañ judd ku nekk indaale wërsëgam mhm. beneen bi ci topp mooy mhm. tamit góoru Sénégal ba tey dañ lay wacc waccaale la ak say doom mhm. doom ju góor baayam a koy yor doom ju jigéen ndayam nañ waxante dëgg mais tamit xam nga lan mooy problème bi man soo ñëwee ni ma càpp di ma bëgg si xool samay doom ma gis ne yaa ngi leen di xool benn bët bu sew wala taxawaalu bi xale di taxawaalu dérangé na la bisub keroog la ñuy ñaanalante maag yow xam nga di xaar ba ñu alxayri ma lay delloo sa kayitu juddoo ko yóbbu sa kër yaay sax day sori mm-hmm. bis boobu laa lay jox sa kayitu juddu nga ñibbi waale nekk duubal jigéen ndax bëgg loolu parce que nag tamit dañoo toll ci réew moo xamante ne gis nga Sénégal lu warum njabootam hmm. baraadaako kaas lañ ci bëgg lu ànd ak doomam almet lañ ciy loolu la mooy comme ni nga defee nii rek <laughs> yow mi ñëw ci biir kër non nga defee nii rek la góor ñi di mi ñëw sëy si na yor say doom hmm. boo dugg see ci biir kër géet kee kër la yoral doom yi waaye yow di continuer noonu ba say doom dund hmm. parce que nag gis nga gémmiñ gu yàlla xar def ci leneen lu dul suuf mais man mami mami balaa ñuy dem sax di xool reportage yu ndoy baan xam nga lu ma gën a naqadi ci loo xamante ne publicité waaw dem publicité li ma gën a naqadi mooy ni nga def góor ñi ci ñu bëri ak maître nañu ñoom ñu sëy ba tas wala boog ñu nekk veuf mm-hmm. yor ay doom nga ñëw uusal leen ko waaye admettre ñu yow mi jigéen bi nga nekk veuve wala ñu sëy ba tas yor ay doom ñu téyel la ko xam nga yow sànq yaa ngi danga commencé nga ne waa ani bàyyam ani bàyyam non non mais su fekkee ne amul bàyyam mhm. lu tax nanga nekk bàyyu xale yow gis nga tey ji ku góor ki lu tax nanga nekk bàyyu xale yi déglu ma rek fi may ñëwee nee naa la ah. su fekkee ne koo ah. xam ne cam ah, cam nit a takk jabar luyul néeg mhm. ñaata nit a takk jabar luyul néeg ak saal ñaata nit a takk jabar am château am ay immeuble ak yépp ça dépend ci yow ku góor ki lay takk ci dooleem fu mu toll su fekkee dooleem tollul fenn fi soo fekkee jeeg bu tafa am juróomi doom soo ko takkee te amoo doole naan bëgg da ngay yor da ngay yorul doom ay problème wax nga ne sa doole ah voilà hmm. ma waxoon la fi ne la gis nga euh, wóolu sa doole baay mhm. ku mu fi tax a ngemb kenn ku nekk di laaj bàlla gay tàkkusaan ju nekk mhm. sa baay dégg muñal mhm. xam nga lu tax yow wóor la ne yow sa doole ci yor kenn la tolloon ah di wàll yaam di la bokk kooku bis bu amee limousine du la bàyyi ci arabi ngay rek xamante ne yorul dara mhm. nga dugg ca moom mhm. mais bàyyil ki yor juróomi doomam yàlla ma ko jox juróomi doom da koy xëcc ko ba bëgg sepp ay doomam te yéen ko leen toogal ngeen bëgg mu yor non non taa dëgg lii moo indi divorce taa dëgg dafa am lu faussé débat bi ca commencement bi waaw mooy <laughs> a nga muy ban mm. dane sama kër mm. waaw bu naan sama kër bu ngeen demee ba bokk war ngeen a mën ak man gëm naa ne boo demee ba takk jabar caabi kër gi ci boppam war nga ko bokk ak moom li nekk ci biir kër gi war nga ko mën a bokk ak moom mhm. mais boo yow boo demee ba yëkkati say mbagg ne sama

attan dugg ci lu mu mën. nañ dem publicité soo xamee ni ndaw soo xamee ni ndaw si léegi juróomi doom soo ko takkee doom na xale am xam ne da doon fàq ba bi mu feebaree dañ ko bindal ordonnance njàmpeeg saabu xam nga lu tax mm. bàyyi jiitlee ma ko daan xool naan ko gaaf ga rey sa bàyyi ba nga juddoo moo ma nar a rey mais yow nañ nañ mooy loolu baa nim mooy mooy ni ni mu fi kay yaay cause divorce yi <laughs> bëgg bëgg jigéen bëgg la ay doomam astaghfirullah jërëjëf euh, mbokk téléspectateurs yi am mbégte nag euh, dellu seeg yéen ci seen émission bi di wareef télévision Futur Média seetu askan wi ñu nekk rek ci cause divorce yi ñun di càjj na euh, dajji paquetu xale yi ki nga xamante ne nekk mu ngi sëy si yow miy soxna si amaale ay doom naka la ko sa jëkkër di téye wala naka la leen di bañee ba nga xamante ne ne tas na sëy ba euh, ku góor ki tamit naka ngay toogee am say doom yaa xam divorcé nga wala veuf nga takk soxna mu ñëw te bëggul xale yi naka la nekkee cause de divorce waaye tamit xale yi tamit naka la ñuy nekkee ci kër gi bañ seen baayu jiitle wala boog bañ seen ndayu jiitle loolu yëpp di ay modif de divorce waaye mami. dafa am mm. ndoy baan foo xam ne foofu la nekkoon. non ndoy baan loo ko gisee. ndoy baan tey yëpp. ndax xam nga nag fii mu ñu bëgg a yóbbu. duñ fa nangu dem tey. ndooy tey da ñëw rek indi dëggantaan jikko sénégalais. parce la. lu tax ma mi nga wax loolu. xam nga lu tax ma wax ko taa dégg uh-huh. mu xalaatee fa la góor ñëpp xalaatee fi toll nii. xam nga dama la fa wax keroog ne la du ñu jënd lu ànd ak doomam almet la ci jënd wala baraadaake kaasam. Mm-hmm. sama benn xarit attaqué parce que nee moom laay sànni xeer déedéet sànni ma ko xeer. Mm-hmm. mais ni nga waxee nii a non su la de dañ lay expliqué yoo xam ne dañ la mm. a xam suñu bopp xam ne yéen bëggu leen ñu parce que nit ki ku ko bëgg bëgg mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. bi gën a metti mooy gis nga man sax dama ci du nekk di négocier ak yéen bay dugg ndax bu ñu duggee suñu doom yi xiif dinañ leen rey ndax jàpp ne ginaar yi yéen a ko la jën yu baax yi ko war a lekk léegi bu bi gën a garaaw mooy ku ci indaale jigéen su ngeen ko mënee noggatu noggatu bu nangoo toog ci biir kër gi ban saaru noggatu nga wax yow ah mooy yow mbaa du laafu ganaar dañuy yee vivé waaw yëpp xam gi nga taa gen mm. li may wax nii li ma wax lu leer naññ la mm-hmm. su fekkee yow góor da ngaa takk soxna fekkee yow amoon nga ñetti doom nga nekk sa biir kër nga takk soxna mm-hmm. sa soxna ñëw sëy si sa biir kër fekk fa sa ñetti sa ñetti doom mm-hmm. nee leen ñii maa leen jur ca labat ga nga wax leen ni ñii maa leen jur mu accepté noonu sëy see noonu fekk say ñetti doom ci biir kër yi nga yemale say ñetti doom xamal ni kii seen yaay la parce que sa biir kër la yor yor say doom. Mm. yor sa soxna. Mm. léegi nag sa soxna. Mm. su fekkee su fekkee ne moom dafa am ay doom. fekkee contraire bi su indaalee ñett plus sa ñett ci kër gi nag. ci la ci loolu laa ñëw. su fekkee yow góor. Mm-hmm. su fekkee am nga ay moyen yor leen yor yor doom yi doo sa sa soxna doom yoo xam ne juróo leen moom moo leen nar a. indaale ci kër euh, euh, non non euh, ñett yooyu say doom la yaa leen jur. yaa leen war a yor doomu soxna comme say doomu soxna yor leen yor leen du force. c'est pas obligatoire nga yor. waaye léegi ndax may leen laaj may c'est pas obligatoire. ba xam ndax Ndoye Bane saa ngi neer wala ñun ñoo. c'est pas obligatoire allo salaamaaleykum. c'est pas obligatoire. ñu ngi fi di la ziar lu bëree bëri. waaw waaw man de bëggoon ci gis émission bi da ngeen xaw a sama sama waaj nag. yow rek la ñuy déglu non sonal guñ ko sax. waaw te du ma ko nangu. te bu ñu wax ci benn la. Mhm. ndax am nañ moom dafa am lu yàq jamono. Mhm. jàng lu mu mën ak teg lu mu mënut. Mm-hmm. day yàq day yàq ànd. léegi mm-hmm. dama bëgg nag ñu wax ci ñaar bañ ngeen ciy wax. Mm-hmm. ndax ki nga xam dafa am këram. day fekk jigéen bi am juróomi nekk ci kër ndeyam wala kër magam wala kër baayam day fekk ko takk ko fa. ndax jot na ci gàtt xel ma takk jigéen bi juróomi doon juróomi ko sama kër. bokkale bàyyi moom juróom tamit indi ko sama kër loolu bariwul. Mhm. amul fenn de bariwul. Mhm. voilà léegi nag parce que loolu du jaar loolu lu mhm. la question ci côté boobu quoi. parce que lu am importance la. ki nga xam dafa dem nag fekk nag jigéen boo wala mu tas yor ay doomam maanaam dem gis ko bëgg koo tas damaa koy bàyyi loolu moom dimbali su ma ko mën a yor am na góor yoo ne ñëw dañuy ñëw xam nga rek ndax dëgg xam ne nii loolu mën a nekk lépp bu la ko wax daal yéen ak Ndoye Bane li moom li mu bëgg moom nit wax lu mën. Mhm. lu mën su bëggee ànd yàgg. Mhm. allo. waaw ñu baax. waaw loolu daal man ci nga il mhm. ak dem seeti ko. xam nga euh, ñu koy gërëm di ko sant. Uh-huh. Ndoye Bane xam nga li ma la wax sànq ma ne la. c'est dommage waaye baax na. Mhm. li nga wax parce que bu ñu fàtte ne cause de divorce la ñuy waxtaanee. Mhm. Mhm. te yow li nga wax mooy cause de divorce da nga denaal da dugg ci thème bi. yaa ngi ci diggu thème bi parce que li nga xam ne moom moo tax lii bokk ci paquet yi te mu nekk paquet bu douloureux. mooy da ngeen di bëgg ganaar bañ nan mhm. gis nga ndoy baan man waaw waaw waaw waaw mais bàyyi ma bàyyi ma développé bàyyi ma développé ñoo doom doom yi mais bañu léegi defal nank waaw defal nank ah, mais nga jéem dëkkale ban jéem waaw waaw waaw defal nank doom yi jàmbur la juróom leen waaw ma defal nank seen kër mag defal nank lu tax ma wax la tas nga sëy bi te ah, takkagoo ko taxawal rek mhm. defal nank rek te nga moytu ma nag. Mhm. nga moytu ma ndax maa la jur bëccëg. saag bi nga ko war a yóbbu waaw man na maa la jur bëccëg vase yii laa jël teg la ko waaw xam nga programme bi mooy. Mhm. li tax ma ne la tas nga sëy bi te takkagoo ko. Mhm. dafa am nenn noo xamante ne gis nga sa veste bi. soo ko solee ci yow natt ko ba mu rafet. rek na rafet ci kaw mami. waaye bu ko solal beneen veste boo xamante ne rafetu yow ni nga admettre. ci sa vie nga am ay doom. dem jël jigéen boo xamante ne yaa ngi xaar ci moom mu ñëw nekk naturellement seen yaay. Mhm. pour équilibre xale yi. nootu mhm. nga war a admettre ñëw fekk ma mi ak ay doom mu nga xëy suba takk ko. Mhm. nga nekk naturellement doom yi pour seen papa. si tu as les moyens. waa déedéet taxawul ma wax la. surtout xam waa la xam nga mhm. dama la wax. Mhm. nee la ñu ci bëri dañ defee ne moyen mooy yor te moyen yorul. xol la dama la bëgg a xol moo yor. xol moo yaatu. gis nga dañ fay gis gis nga mag ñu njëkk ñi. paa yu njëkk yi. doon affaire moyen de. léeg-léeg nga ñëw fekk benn kër boo xamante ne xale yi happiness ak yooyu fekk ne jonga ñoom dafa nekk ah. veuve la. ak ay doom paa bi xale ya ba nga xamante ne ku ci nekk mu may la dugal la ci néegu sëy ah def yëf ya normal ba nga xam ne dañuy defee sax paa bay leen jur mm-hmm. xam nga dafa am lenn loo xamante ne daf fi nekkoon ngeen bëgg koo teggi mm-hmm. mooy kilifteef du lu ñuy wax lu ñuy jëf la mm-hmm. gis nga jigéen soo ko fekkee ak ay doomam xamal ko ne nekk lii nga xamante ne nekk maa ngi la fekk ak ay doom yaa xam seen papa dafa dee wala deewul mission la ci man mii góor ma éduquer la xale yi nga ñëw jël leen téye leen teg leen ci place loolu dama la bëgg wax ne du xaalis xam nga baax li ma la li tax ma ne la tas nga bi te takkagoo ko yow yow Sénégal général doom rek waaye ki nga xam ne yaa ngi koy seeti da nga ciy gis wax naa la da ngay gis kenn koo xam da nga ñëw di ko labat eh, écoute mën naa la takk mais say doom da seet fi nga leen di tas ah mhm. jigéen bi nag léeg-léeg mu doye di doye di goo xam ne dina jël doom yi yóbbu leen daara tasat leen ci kër ay mbokk ndax bëgg sëy mais su toogee ak yow dis-toi que muy guddi muy bëccëg fu mu toog xel mi nekkul ak yow mhm. xel mi ay doomam la nekkal mhm. te góor bu ci bëgg noppalu di nga dem jëli ay doomam mhm. dajale ko boole ak ay doom téye pour ndaw si xel ma nekk fa ci kaw nga mën ko yow yow yow dañu mën mooy xaalis di nga mën xaw ma xaalis la xaw xaw ma xaalis la tey jii mën ngaa dëkk piir wala dëkk ginnaaw ngaa yor fa kër kër di nga kër yooyu ni muy ni muy rey hmm? waaye ma ne fu ah, xaaral ma ñëw taa dëgg alors seen xol yi vase bi soo ko yëg doo ko jot soxna si nuyu naa leen waaye. ñu ngi lay ziar ko baaxee. maa leen di sant di leen gërëm. waaye waxal Ndoye Bane mu wàcc nag. waaw Ndoye Bane moom euh, boo gis tey moom. Eh. soxna si yàgg naa leen seetaan. Eh. waaw boo gisee tey ma woote sax Ndoye Bane moom moo tax ma woote. Eh. waaw li tax ma woote tey Ndoye Bane moo tax. Mm-hmm. parce que dama gis ne tout temps da ngeen di seetaan. ngeen mm-hmm. di góoral. waaw mais tey. non non bàyyi bàyyi télé bi bàyyi nga bàyyi télé bi bàyyi télé bi nga dégloo ñu ci téléphone bi. waaw tey damaa gis que ñun Ndoye Bane ni leen doon taxawoo taxawu leen noonu tey. déedéet taxawuñu ko diw ba ko fal danañu ko diw. waaw waaw bul bul bul dégloo ci télé bi waaye li nga wax dafa neex bàyyi télé bi bàyyi télé bi bàyyi télé bi wàññil télé bi. parce que li nga wax soxna jigéen. Mm. loolu rek mooy wax bi yëpp. Mm. affaire bi affaire u xol la. xol la lay du moyen. waaw wàññil télé bi nag. Oh, voilà télé bi. waaw wàññil télé bi wàññil télé bi. Hmm? nit ki waroo bañ ay doomam. Hmm. moom <laughs> def dèjà lu paase bañ. moo moom këram. lu a wax ngeen dàq ko ci mu ne bu fekkee amoo moyen. kon nag euh, je pense que ñun Ndoye Bane tey moom. daanu na tey kay dañoo war rek. daanu na daanu na carrément daanu na ma ne mu ngi ci set euh, ma gis mooy que ni vraiment Ndoye Bane moom. Euh, xaw ma ko vraiment bu baax a baax. jigéen ñi la daan àndal de waaye tey dama nit la ko koo xamante ne bii li nekk ci man lay wax. Ah. boo gisee tey ma woote Ndoye Bane kese moo tax ma woote pour man. Ah. amul place foofu. ah, ah. non daf ñuy tooñ rek nag mais Ndoye Bane pour man amul place foofu mu nekk. te ni mu réagir tey. daanu na daanu na daanu toog ci télé bi. non tey nag tey nag da dëbb rek pour bëgg ñu tàngee. gis nga gis nga gis nga bu la ci kenn ndax gis nga yoon moo am wala ñal uh-huh. gis nga gis nga waa ji lu wax. nee na da nga njëkk wax ne sama kër la. Uh-huh. nee na ñu dàqee la foofu. nga ñëw nga nga ñëw naan moyen. waaw waaw xanaa doon histoire waaye am na ko. dafa am leen loo xam ne man dama daate parce que yow yaay exactement type gu. Uh-huh. sëy bu tas te takkawuñu ko. <laughs> ci jigéen bu am doom. mais nag gis nga <laughs> taaliga li tax mu neex. Uh-huh. mooy nii mu ko waxee nii. Uh-huh. dafa génne ni ñu koy xalaatee góor. sénégalais. Uh-huh. ni ko sénégalais di xalaatee noonu la ko génnee dëggantaan te it loolu dafa baax exactement dafa nekk aussi mu di ñu wan li moroomu góoram yi di wax su toogee tamit te ñu xam nga lii mooy problème coow li mm. Mm. ñu ngi naan jëkkër dafa manqué gis nga ñu toog yor seen i doom mm. ñoo gën a am problème mu sëy mm-hmm. li tax ñoo am problème sëy mooy ku leen di takk ku nekk yaa ngi calculer lii muy wax mm-hmm. yaa ngi koy xool mm-hmm. naan bu tabaski dikkee ma war a jëndal sama ñetti doom war a jëndal juróomi doom muy juróom ñett mais bul fàtte ne yow ndaw si bi ngay ñëw ko takk ko fekkoon mu dëkk nekkul woon ci mbedd mi recevoir du mbedd mm-hmm. pourtant fa mu dëkk peut ay moyens la ko doon fay mm-hmm. da nga ko fekk muy lekkal ay doomam di mm-hmm. ko mun a yàcc na ko ah, fekkee da ngaa yor sa kër gu ah? ko def nga bëgg yow fa nga daanoo gu mag su fekkee munoo yow mun yow pour sa bopp sax problème la ah sa soxna sax soo yor sa ñetti doom yi ci misaal mba da ngay sa ñetti doom da ngay jéem a débrouiller pour yor leen waaw léegi nag gis gis nga gis nga jamono ji neexul jamono ji dafa neexul taa di ngeen gis nga li laal booy xamal ne góor gu ko ci dugg ku ci ku ci soobu ba dugg ci loolu mm-hmm. di nga dem yellu nit day yellu lu mu àttan mm. bopp du yenn waaye xam na lu mu àttan mm-hmm. su fekkee yow sa ñetti doom yi nga yor ci mm-hmm. kër biir kër gi pour nga yar leen sax pour nga yor ngeen pour nga jox leen lu ñu lekk pour nga yóbbu pour nga fay seen école. waaw waaw léegi waaw léegi dama lay laaj. da da am ah, sot ga ma nga ca ba ca ay régie. déedéet déedéet xam nga déedéet <laughs> dama lay déedéet xam nga lu tax. lii yaa leen ko jiiñ li tax ma ne la cause de divorce la. waaw waaw. xalaat bi nga teg sax cause de divorce la. waaw. parce que yow admettre nga xam nga man fan la ñàkk yërmande commencé man ci euh, sama euh, gis-gis bu gàtt euh. de laa la wax. waaw ñàkk yërmande ak ñàkk xam àddina mun ta weesu yow nga mën a admettre jigéen boo xamante ne ne ñëw na téyel la say doom nga ne ne mu def leen comme doom pour sa équilibre yow mhm. te yow xalaatoo équilibre jigéen ji nga xam ne moom ngay takk benn mhm. te yow comme yow nee nga ne ñetti doom yi mënoo leen tey kon yow doo téye jarbaat yow doo téye kon sa doomu sœur mhm. doo téye sa doomu frère doo téye sa benn doomu mbokk parce que yow sa ñetti doom yooyu jàpp nga ne nee no non pour te dire yaatu yaatu ci xel la du moyen nga taa déggéen du moyen taa doomu xam nga sa doomu sœur ah sa doom la ndax yaayam. waaye sa doomu jabar du sa doom déglu ma rek. jabar du sa doom ma ñëw déglu ma ma ñëw rek. kon yéen kon sa doomu jabar du sa doom waaw nag moo tax laasu ko naa ci seen xam nga doo doo ma déglu. waaw dama déglu naa dama ne sa doomu jabar. Mhm. sa doomu sër. sa doom la parce que yàgg yaay ma bokk ndey ak baay sa jarbaat sa deret la. na ngeen bokk ko bàyyi sax. sa deret la. Mhm. sa sa doomu sa maanaam sa jarbaat la. Mhm. Mhm. say doom yi nga xam ne yaa leen jur yaay seen baay. ngénte leen ñu nekk sa biir kër. say doom lañu. mais gis nga. neexul sa doomu jabar nag du sa doom déglu ma rek sa jabar day neex su na say neex mu toog su naqaree dala fi dala dala fi bal bàyyi xam nga yow da ngay a kat bu bàyyi ma ñëw bàyyi bañ a gis fi may su ki man ki am ay moyen am fu mu dugal jabaram ak ñetti doomam ak juróomi doomi eh, jabaram jéem a takk. Mm-hmm. te du seen bàyyi. Mm-hmm. su fekkee am na fu mu leen dugal. am lu mu leen jox ñu lekk mën leen a fayal seenum njàng mën leen a yor ci côté yooyu yëpp. Mm-hmm. taxawu leen comme taxawu bàyyi mën nga ko. soo tëdd sa biir soo tëddee sa njegeenaay xalaat ni mën nga ko. man bañu ma nga def. xam nga dama ni xamal nga ni yow sa bopp. sa loxo jotul sa digg ginnaaw. loolu loo ci dolli man loolu lay. mais jarbaat boobu nga fat noonu bu fekkente ne kee kuy baayam ngay laajte jarbaat boobu nga fat noonu dafa am baay ndax dañoo takk yaayam moom it. waaw da nga dem kër baayam. mais mu ñëw toog ci sa kër yow di añaka reer di tëdd. sa jarbaat mais xaaral tuuti xaaral tuuti. ma laaj la mais ñee ñee ñee sa jabar sa sa doomu jabar yee. Mhm. du sa deret ci benn côté. ma laaj la leneen ma laaj la leneen. mais mën nga leen a ñor. est-ce que xam nga mami mami mami. Uh-huh. xam nga Ndoye Bane fan la defee douze appui ah. yow Oh, malheureusement laaj ma fan nga defee. waaw waxal waaw. mooy fa ngay waxee ay deretu diw la ak deretu diw ndoy ban taxawal ma la. taxawal ma wax la. li nga sëy. du caaxaan du hasard. li tax yàlla def mhm. mami jóge Diourbel yow nga jóge Kédougou suñu borom bi ne namm naa leen boole Dakar mhm. loolu domaine exclusif de Dieyna d'accord waaw taxawal taxawal leen fi nga kat douze appuyé mhm. douze bari na fi nga douze appuyé dafa douze appuyé douze bari na nga kat di dem yaa ngi ci trente quatre tax loolu lu tax loolu mooy sëy du hasard kon su fekkente ne ne que suñu borom bi moo namm takk ca aras ca fagateel ak sunna si Muhammad mhm. yàlla deful dangay cuune mhm. Mhm. kon ma ni su fekkente ne ne am na ay bant yaa xam benn la wala ñaar wala ñett yaa ngi dégg baax na benn mën nañ ko wala ñaar waaye di fekk ku am juróomi da leen di yox ma wax la dara mënoo ko xam nga jigéen est-ce da ngay lor dina sëy ci kër bi may ma mooy yow te xam nga jigéen dina sëy ci kër mm-hmm. di fàttaleku ndax ndayam ak baayam a ngay lekk rek mu tere koo lekk ci biir kër gi muy sëy mm-hmm. waxuma laa nag jigéen yow bu nekkee ci biir kër gi nga di ko jox àdduna ak li ci biiram tëral ko ci lalu jamaa mu fu jàpp ne ay doomam a ngay fanaan ci basan bu jox àdduna nit daal day def lu mu mën waaw jëlal da ngeen a bëggul allo di xem leen jigéen ñi waaleykum salaam soxna si attention eh, bu góor ñu sant bu baax <laughs> yëf yi tàng na tey de dañ may sot waaw tàng na lool <laughs> waaye man dama bëggoon wax ma ne pour Ndoye Bane waaw waaye euh, bon je suis pas d'accord avec lui mm-hmm. mais tam li mu wax li muy wax la li muy wax mm-hmm. dëgg la de waaw li muy wax dëgg la dafa am. Mm-hmm. mais tax degen mm-hmm. ñun ñii jigéen. Mm-hmm. lu normal daal la ñu nekk di wax nii looloo normal. boo bëgg da ngay bëgg ak say doomam. mais li Ndoye wax nag dafa di dëgg. waaw booy booy jël jabar. même doom yi boo des fois dañu leen di jël te duñu leen mën a yor. te xam doom dafa délicat. ku dul fa doomam loo ci def rek dañu naan waa bu doon doomam bu doon doomam. kon na la bàyyi kon na la bàyyi ba nga ba nga na la bàyyi ba nga daje góor gu même ñun ñu si jigéen ñi sax mm. des fois ñu sëy ak doomu góor gi mais des fois dafay am yenn yooyu def tu fais trop attention ba nga xam ne mm-hmm. mais ils sont jamais satisfaits c'est la même chose comme si ñun jigéen ñi waaw mm-hmm. mais je voulais dire rek que doy baan li neexul mm-hmm. mais nag dëgg la waaw <laughs> dëgg du neex xam nga xam nga programme bi. Mm-hmm. Mm-hmm. xam nga man d'accord naa xam nga xam nga ci lan. Mm. su fekkente ne ne que mënuloo. Mm-hmm. na bàyyi ndaw sa ba mu dajee góor gu am yërmande. xam nga tax. parce que su dajee góor gu am yërmande kooku su fekkente ne ne que amul moyen sax. mais mais yëpp waaye taxawal rek ndoy ba. ngeen bàyyi ngeen bàyyi sëy. waaw mais <coughs> ah. xam nga lu tax. parce que su fekkente ne ne que mami. ngeen bàyyi sëy bi parce que mënoo yor ay doom yooyu. da nga ah, koy bàyyi. parce que yow tas nga ci divorce la ñuy tas nga sëy ba te départ te nit ki mënoo koo bëgg ndoy ba man mënuma ñëw fekk la ak say doom. Mm-hmm. ne bëgg naa la te bëgguma sa ay doom amul mm-hmm. sens. Mm-hmm. moo tax ma ne la affaire bi il faut nga natt ko yow ci sa bopp ba pare mënuma ñëw taxawal ndoy baan. bëgg nga yor doomam yi. waaw kon nga ba ko. ah ko daa dégg ngeen wala mooy koo xam ne mën na koo yor ak ay doom wala moom mu yor que xam nga lu tax mm-hmm. les enfants souffrent de ces situations là mm-hmm. doy baat mm-hmm. xale yi dañuy souffrir soo gisee lu tax cause divorce xale yi dañuy souffrir léeg-léeg nga gis xale ndaw soo xamante ne dafa bëgg sëy góor gi dajee bu mel ni yow nga ñëw wax ko ne mu wër di ko joxe ci ay daara bàyyi ko kër ndeyam xam léegi nag ndaw si moom mi ngi topp bonheuram nee naay te du bonheur de ndax bonheur dëgg-dëgg doom rees la mu ñëw topp la ci sëy ba jël xale yi bàyyi ko kër maam. Mhm. xale yi di souffrir mere seen yaay. xam nga fan fan lay gën a méttee. Ah. taaligen fan lay gën a méttee. yow ko góor ki nga takk ko jigéen ki jël ko ko juróomi doomam nekk ñoom te mënoo leen a yor foofu lay gën a méttee. lan doon dundee avant muy xam ko góor ki mën nañ koo continuer mais su fekkee yow takk nga doomi jàmbur muy indaale juróomi doomam nga ne mën naa leen a yor te mënoo leen a yor xale yi tey ñu jàngi suba duñ jàngi ñi ngi ñi ngi ci dëkk bi di taxawaalu amuñu fu ñu fanaan du ñu lekk lekk gu doy. du ñu tëdd fu normal mais loolu laa la doon bëgg a xam nga lan moo ngi ko defee bu ne te nañ ko waxtaanee lay jóge. waaw ndaw si balaa nga ko doon takk da nga ko labat. waaw da nga ñëw fekk ko. lu sëñ ci sëy nuyoo la voilà da ñëw fekk ko ak ay xale. Mm-hmm. Mm-hmm. yaa ngi mm-hmm. ba nga ñëwee premier jour ba nga koy labat. xamal ko ni ne bëgg naa la waaye say doom yi fu ma dem duñ ko topp ndaw si du mu sa d'accord te ñu ci ëpp su d'accord mu cause divorce dafa am noo koy waxee doo doo ñëw ni ko waaw dama lay takk waaye sa doom du ñu takk man kat bëgg naa la leeral mooy malheur bi ñëw ci ginnaaw rek laa bëggoon mu leer man bëgg naa la ma bëgg naa la wax dëgg yàlla mhm. mais man aw ma ay moyen mhm. pour yor sa doom yi xam ma a ngi mhm. mu war a def ci yow di manqué mhm. ngay mhm. am xelam moo nekkut ak yow nga ne nekk fa xanaa xamoo ne a ngi togg ci biir kër lu neex loolu ko te du ci ñam xam nga lu tax wóor na moom ci lal bi xelam nekkul ci lal bi mu tëdd ndax jàpp na ay doomam a nga tëdd ca basang yàlla bu mu tombeek période sedd ba pare ba dama lay jox li gën a neex sax nga ñëw di ma labat yaa ngi dégg yaa xam veuf nga yaa xam divorcé mhm. nga yor say doom mhm. trois cinq lu la neex deux un comme tu veux mhm. nga ñëw di ma labat nga bëgg ma lool ma na la ah ma ne man d'accord naa sëy ak yow yii waaye doomu jàmbur du ko téye man da taxawal rek taxaw ba ma coupé taxaw ma wax la rek doomu jàmbur du ko téye kii daal su fekkente ne daal bëgg nga ma delloo ko ndeyam na ko ndeyam téye daal soo bëggee ñu sëy ñun ñaar yow ban réaction ngay def loolu góor non non daa doon daa doon am kër baay mais am nañ kër ndey. déglu ma déglu doom ju am kër ndey am na kër baay a yor doom sëy bi daal tas na tas na baay a tabax la la fa jëlee sa jabar nga indi keneen te ne da ngaa bëgg a boolee. ngeen soo leen ma dégloo rek di ngeen comprendre. mais ci ko. yow gu tabax sa kër. waaw am jabar amoon jabar ngeen tàggali ko wala ngeen am ay doom feneen nga dugal fa say doom. Mhm. soo demee takki soxna indi ko ci biir kër gi ni ni nga yore say doom noonu nga yore sa soxna. yaa leen yor yaay seen kilifa. comprendre nga yow yaay seen kilifa. ndaw a su dee bëggumaa gis doom yi nag. bëggumaa gis doom ah. waaw mais mais mu génn kër gi dem yoon. ah yow tamit kon bu a takk. <laughs> kan jeex na ñu soose kan. doom yi du yàgg yow gis nga jabar day neex mu toog. day neex rek mu. mais c'est que yow fi nga teg sëy fi nga teg sëy. non non moo moo moo moo. max fii ma teg sëy mooy. Mm. def loo mën wax loo mën soo tëddee nelaw. ah ah ah ah. ah. gis nga gaa yaay gaa yaay nga teg sëy. imagine imagine méchant nga non fu méchant nga teg jii imagine tey jii ma ñëw. mami kii il est li labat man ko ay doomam ñun moom moo sama doom yi il faut nga yor leen nga ni waaw mhm. lu la wax rek nga ni waaw mhm. accepté ñëw di jaay di def trafiquant de personnalité ba mami nangu nga takk ko muy ndaale ay doomam da koy nga nga nga nga yor yor doom yi doom yi ñëw ci kër gi fekk sa ko mois yoo xam ne lépp normal na ñu dem ba ca biir ndekete yow la nga doon wax lépp mënoo ci dara. Mhm. looloo gën a bon. waaw lu tax sa xol mënut a accepté doom yi. déedéet accepté ma lay wax nii accepté nga doom yi. Mhm. si ndaw si sëy si ne indi na ay doomam. Mm. six mois ngay assuré ndekete yow da nga doon tricher. di tricher. waaw lan moo ci déranger est mois yooyu ngay tricher xale yi am na ca koo xamante ne wërsëgam mën na laa yor ba yoraale réew mi bu question da ngaa bañ doom yi man waxuma bañ de dama ne ci biir six mois yooyu xale yi am na ca koo xam ne wërsëgam mën na laa yor bañ xale yi. Mhm. bëgg seen yaay bañ xale yi bañ la moo bañ laa bëgg ñu teg ko. bañ nag yow kat bañ kat nga. max la lan la. yow déteste kat bu mag la lii baax ci kanamu taa dégg nga. kii déteste kat bu mënul gis nga mhm. dëkk bi. li ko yàq mooy nit ñi dañuy wax lu ñu mënul ak di def lu ñu mënul. Mhm, dëgg la nit def lu mu mën di wax lu mu mën. soxna si yaa ngi koy takk ak juróomi doom nga ñëw di tricher indi doo juróomi doom sa biir kër yor leen 6 mois ba commencé xam nga sëy moom début bee neex mhm. ba nga commencé affaire yi commencé naqare nga commencé ñu la koy xase waa laaj ma li neex yaa yaa tax aw ma dara waa laaj ma li neex yaa tax man sama d'accord naa yaa fi indi sa doom yi bari yi waa léegi waa léegi laaj ma li neex kon yow bu ko labat bu ko takk yow kon demal ut kenn koo xam ne célibataire la yorul doom yorul dara nga labal ko takk ko moo tax mën la nit day def lu mën waaw xam nga programme bi programme bi mais man nag taa déggan kontaan naa torop ndoole mm. li ma daan kontaan ci ndooy mm. xam nga lu tax mm. daf ñu fëggaat beneen mbéj ñu wane na sànni ah, néew la non non mu paas moom mais <laughs> boobu moom mais daf ñu wan daf ñu wan góor ñu ndeke ban xalaat la ñuy am ci ñun jigéen gis nga ko gis nga ko donc kon dafa damay jàkkaar mooy motif jigéen yi nga xamante ne ñoo yor seen doom yi wax leen ne man la man la joo gis moo tay ndayam gis nga ki la bëgg ta man la yor say doom waaw lii naqadi na ma toog leen te dal te xam ne ki la war a takk bis bu dikkee dina jot mu takk la mais itam ñu nit bu ñu jël suñu doom yi rek ne ko yàcc bàyyi ko ci déformé wuñ ko de loolu. yow kay yaa déformé yow sa jëm bopp yaa déformé. ni ngeen di déformé phrase bi mooy. Mm. bëgg ndey bañ doom bañ. non loolu fi lañ ko fekk doom non non ay cujjam loolu fa ko wax. da ngaa kon yërëmoo doom yi. da yërëm nga ah. leen. a yor. waa léegi mënoo ko waaw xam nga ndoy baan dañuy dem ba suba xam nga lu tax. Ah. ñuy dem ba suba. sa 34 appui mi nga commencé. <laughs> fii nga yor sa ñetti doom bañ a yor benn doom nit ñi nga xam sa 34 at commencé sénégalais yi nga xam ne dëgg c'est que ak ñi ko xam ne wax seen xol a bon man dama bëgg xam 34 at ñaata kii la war a samp xanaa mari day jàpp tàmpool <laughs> ba suba Ndoye Bane Ndoye Bane wane na boppam wane na góor ñi. démb bu gaay nga ma sànni la sànni dara. Eh. du ma la <laughs> du ma sànni dara. tey merloo nga ñu torop. Ah, merloo nga ñu torop man man rek yow yow nañ tàggu la eh. am naa envie la téléphone trop ci bopp eh, laaj ma li neex. moom comme moromu góoram. moo woote ne ko yaa ngi ci 60 appui. tàggool ñu dem ba suba. waa ndooy yokkal naa la ci 10 muy 70. yow bàyyi ma yëpp jàpp waa di wax ne waa Sénégal kenn. du du daanu nga. lii yëpp dañ koy def rek pour gën a génne mbir yi fan la nekk pour mhm. kenn ku ci nekk ci ñoom xam sa nar ca nag wa mhm. ngir bu ëllëgee nga xam fan ngay jaar ba mbir mi gën a yomb xëy na ñoom bañuñu waaye dañu dul àttan ak suñuy doom <laughs> waaye ñun itam kon nag ñu jéem <laughs> xam nga dama sama benn si bu <laughs> eh. na affaire bi du moyen xol la mhm. nee na ak yërmande nee na saag bi nag ma teg fii nee naa la ko sànni benn yoon la waxee nga door ko sànni lañu soxla boo demee maman ngay sëri caama ngay mbëkk waaye yaa booy rek tooga rek kanam bu baax tàngool ba suba waaw ba suba jàmm waa Sénégal te su suba bul sol west Ah. ndax li ñuy defanteeg yow. Ah. was arrangé wu la. <laughs> merci beaucoup ñu ngi sant di gërëm ñëpp di jaar ñëpp. ñu ngi naas luy la sàkk ñu ngi seetaan di leen tàggu rek ba suba ak jàmm incha allah waaye daal dëgg moom mooy njëkk mooy mujj. Mhm. waaw nit ñi nit ñi di wax dëgg soxna yi. <laughs> di def loo mën di wax loo mën soo tëddee nelaw ndoy bañ dama am ñu moo xam ne dama leen a bëggoon a tàggu ca Touba Ndaamaatu dama leen di nuyu sax ah. ñooñu taadiggéen bi ñuy sonn ci man nii laa toll muy euh, Ndey Mbeng maam Busa Mbeng ak seen goro lu nekk defal ngeen ko ci garuk àdduna du ma ko mm. musa fàtte ndax ba ngeen di bëgg kenn bëggul mm. kon xam leen sama xol yëpp a ngi ci yéen ak waa Ndaamaatu gépp nuyu leen ma leen mm-hmm. taadiggéen delluwaat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 Ah. loolu moom li ñuy def suba nag suba ñetti pièces lañ la laaj soo yeboo tegale comme temps yi ñi parkaatee xale nga xam ne fi ñuy tegale soo yeboo tegale bu baax a baax a baax a baax ah, te nag naa la booleeg bàyyi seex naa la boole Kouthia naa la boole ñëpp te jigéenu Sénégal yëpp ñu ne mere nañ la kon di leen jox rendez-vous suba ci kàttanu yàlla di nuyu nag ñi ci diaspora bi fatabakalla macha allah xam naa ni dédicace dañ koy bàyyi ba suba waaye daal ujaa ya nekk ca makkatal mukarram ñu ngi leen di ziarat bu baax a baax di ñaan suñu borom bi nangu aj bi fatabakalla macha allah arafatu àjjuma lu jafe la waaye suñu borom bi def na ko ci coobareem mhm. yàlla suñu borom bi def ci ngëneel yëpp ci barke Seydina frère am mhm. fa tabakalla macha allah ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ah euh, fa la macha allah kon ba subaam jàmm jërë ngeen jëf ci beneen émission wareef euh, Mia merci beaucoup